tey ci turu président de la république son excellence Macky Sall muy kenn ci jigéenu Sénégal ci jàppale bi mu leen jàppale taxawaay bi mu am ca kanamu jigéen ñi di leen jàppale bu baax kon président gàcce nga laa mag Sénégal waaye gàcce nga ma président Macky Sall jigéenu Sénégal. sama taxawaay tey moo ma yónni wax ma ne ma naa ñëw seet si jigéen département de Mbacké nuyu si leen indi leen ay financement daanu nag dañu suuf. mënuñoo am financement waaye yaakaar naa ne jigéen ñi suñu jàppoo ak suñu bennoo tax na kenn ku am financement jàppal ne yow la ko amal jàppal ni ñoo bokk liggéey parce que Sénégal ñoo ñëpp ñoo ko bokk kenn mënu ko xar ñaar kon su kenn amee rek na jàppal ne morom am na mu liggéey remboursé ëllëgam si moromam am loolu mooy jàppalante jigéen ñi yaakaar naa financement yàgg na am Sénégal financement yàgg na ñëw ci réew mi waaye financement président Macky Sall mosu mu fi ñëwee tey

société yooyu dañ leen ko jox waaye amul intérêt parce que président Macky Sall moo leen ko jox ko def naa yooyu leen ko jox pour liggéey jox ñu leen ko pour ngeen def seen kër jox ñu leen pour ngeen séddoo ko jox pour liggéey ci bu ngeen ci liggéeyee bu soobee yàlla fii ak diwén dinañu évaluer li ngeen def parce que defe naa financement yi balaa balaa si dugg Mbàkke bi ma njëkkee ñëw sama magistère nekk sama département jigéen Mbàkke laa njëkk dalal ndax dama leen jox cër bi ma génnee Sénégal si laa njëkk a ñëwaat kon yaakaar naa jox naa leen seen seen cër